fe saa su nekk ci waxtu wi léegi seen jotaay bii di 3MPC ñu ànd kook euh, sunu mbokk yi nekk au niveau de la 15e euh, région la diaspora dañu bàyyi xel rawatina ñoom euh, Salsam Ahmed Sedine Babacar Faye ak Diaw Samb dañu topp bu baax baax depuis Belgique France Italie Espagne en tout cas ñoom mbégte bokk ñoom liggéey bi fas yéene di leen ñaaxaat ak jaajëfal baax ci taxawaay gi ñu am ci sunu plateforme digitale rawatina YouTube Facebook mais également mën nga ñuy bàyyi xel ci canal bi numéro 445 qui euh, ci canal horizon wala numéro 12 ci TNT bi wala lu jëm ci li nga xam il euh, plateforme digitale Casablanca de son confrère et sa femme madame Ba euh, Mohamed Ahmed Cheikh depuis Casablanca den ñaanal bu y a y a tamit lañuy rek ziaré ak nuyu ci Sénégal di ci jiital sëriñ Mouhamadul Mountaxal Bachir yalla may ko wér andou ko ak mboolem yeneen kri doomi soxna yi serigne Babacar Sy Mansour faté fàttewuñu wa jangou bi mo suñu Benjamin Ndiaye diko ñaanal jamm ak wér ak euh, vraiment clergé bi archevêque yi ñom ñep yalla dafa leen tawfex lolu moy Sénégal concorde nationale la cohésion sociale euh, ñu ci am mbégte bu baax a baax a baax noonu tamit lañu amé euh, amee di ci nuyu suñu papa Alaaji Onge Diagne depuis Cambérène di ñu baye xel ci suñu ay émission waxtu lé mi ngi ñuy baye xel fofé depuis Cambérène

équipe bu avec Afrique sunu euh, kilifa googu di Ismaïla Aidara noné kon lañu ñu am mbégte bu baax baax di and ak euh, Aïssatou Ba mom di également journaliste sunu concert nek également kuy euh, ñew ci rubrique bu am sol di média ñu na a waxtaanee tey lu jëm ci publication yu am ci liste bi nga xamné jëm na ci les médias reconnus par l'État du Sénégal mu nek une liste donc provisoire pour le moment avant que ñu wax définitive voilà donc dañ ci ñew de façon très ample gën ko waxtane Aïssatou la native de Tivaouane Peulh Peulh bi déggul wolof Aïssatou maa ngi lay nuyu.

Euh, reconnu par l'État du Sénégal euh, dit publication bobé jóge ci la tutelle du ministère de la communication mi également ni ko junjee que également sunu Yenen, invité di ñu sur ce plateau René Gomis des responsable des programmes de l'association Jeux euh, d'Éden troisième édition donc autant pour en Sénégal et point focal communication de la troisième édition du Dakar donc Games Festival ñu événement bu am on peut dire que peu connu du public en tout cas ñor Yatal. ñu profiter aussi mm-hmm. mm-hmm. ah, en tout cas dans le la pour que partager euh, ce petit moment ak mm-hmm. voilà jërëjëf. di nuyu bu suñu concert euh, Fatima Diop bu Sen TV également nek euh, une femme très. Euh, devait à la tâche de def liggéey bu am solo euh, ci walu média bi euh, danaka mm, di ci baywaram waaram foofee ca Sen TV ñu koy nuyu de passage suñu concert soxna Fatima Diop voilà di xaarateegun bu fekkente ni yoon bi xatul ba xat ndax ku nekk xamna Dakar ni mel di mam Diarra membre de la cellule de communication de la plateforme Ndayu Askan Wi des femmes musulmanes du Sénégal ñu ne la kon waxtaanee lu jëm ci sen couleur googee ak àq ak yelleefu jigéen ñi coowal genre nak lembe jamono jilé euh, ñom nak mu lendem ci seen euh, xel am donc voilà euh, mais laata lolé dañuy dem régi ñew ñew ci patch bu ñëk actualité bi actu du net violence électorale à Saint-Louis le procureur requiert cinq ans de prison contre des agents de sécurité de Dakar actu xamlé ko dañuy dem

effectivement Abdou le procureur du tribunal de grande instance bu Saint-Louis Modade daal Aidan, a été daan teg ko ci juróom-ñett fukk doomu yi nga violence amon foofee ci Saint-Louis ci campagne électorale Niel euh, jongante législative yi nga xamante ne génn nañ ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum novembre atum 2024 bi ñu nekk yi lee juróom-ñett fukk doomu ay daan yu cas, ñaari pour du à

xam ku nekk euh, fi ngay mujjee gannaaw bi nga xamante ne nag bile audition jeex na procureur bi daal nay ay këti ab peine bu juróomi ati kaso teg ko ci euh, ñaar fukk ak ñett si ñi nga xamante ne bokk nañ ci juróom ñett fukk maanaam quatre-vingts prévenus yi nga xamante ne tegoon nañ leen loxo euh, bile procureur nag di xamle kenn si ñoom daal nañ ko ràññee ci ay vidéo ak ay témoignage mu yore paaka ba daal dee gaañ ak benn bu jugee ba tey ci ñoom ñi procureur bi daal xamante ne ñaari atu kaso la nga xamante ne don benn at bi la ñuy daal di eh, tëdd mm. eh, li ni mel nag li ko waral mooy dañoo daal di woon yore rek arme yoo xamante ne dafay juyee jur ay violence ci le campagne électorales te ñun ñëpp xam nañ ne ab arrêté ministériel ministériel autant pour moi jugoon na ngir rek tere képp koo xamante ne da nga daal di yore ab arme li ni mel rek moo tax ngont bi mu tëg leen deux ans Euh, de kaso euh, deux ans de prison dont une année ferme voilà ñi ci des nak waxon na ko ca dorga euh, gennaw bi nga xamante ne dañ ne amuñ lenn luñ leen di topé dañ leen nak daal di bàyyi ardu ñu ñibbi seen kër. Mhm, am solo le temps que ñu ci ñew rek joxe ben xibaar bu wad légui moy communiqué de presse bu alliance pour le progrès économique APE diso élection législative ñu jall nak ñom nañu def ab natu xeymo ci kon ginnaaw résultat yi nga xamanteni 17 novembre bi mu wesso joxna largement victoire

Ndiaye daal di koy yone di ab communiqué djem kon ki di solution bob les coalition jot li kaddu askan wi donc voilà ñu koy euh, jaajëfal Papa Djibril Ndiaye euh, René par rapport à euh, l'actualité toujours c'est dans le même siège parce que en prélude à ces élections législatives le xexo yooyu ni mel am ci diwanu Ndar ak dans d'autres d'ailleurs même localités du pays mais bi gënoon a ëpp coow ba amone sax ay blessures yu graw bokk na ci bi amone feulé ci Saint-Louis bañ doon wax sax donc gravité euh, euh, violence yi euh, tey mbir mi ci loxo yone ba rek ñi c'était l'objectif autant point la raison pour laquelle le motif de la non-présence donc du de l'honorable député Barthélémy au niveau de l'hémicycle parce que ñi ci ak procureur procureur sàkku ñu tëj leen ci mu nekk dans événement aussi man dal euh, li euh, c'est vraiment dommage parce que euh, élection ça yoo ko gisee dal élection fête le normalement fête le war parce que rencontre euh, entre le peuple avec leader yoo xam ne ñoom samp donc violence bu si nekkee moom affaire la quoi donc même boo xoolee histoire histoire politique Sénégal violence daa am mm-hmm. mais dafa di lo xam dañ koy nakarlu dañ koy nakarlu bu baaxa ba légui dal yoon daal yoon mooy yoon

Mhm. si c'est yoon mhm. voilà amna na solo donc mu nek lo xamanteni kon euh luñu war gëna gën a xel ci anam gi ñi défé politique euh, mu mel kon euh, mais buñu waxé waxee réquisitoire du procureur c'est-à-dire que taxul daan bi am c'est-à-dire que da fay nek lo xamanteni ak fam la rek parce que le procureur fay euh, dafay da fay def réquisitoire ça dépend nag juge bi até par rapport ak li muy souvent mën na bañé sax ag fofu wala bok mën nako ko sax yées selon vous tay naka nga sur justice parce que les mêmes faits yi ñu gis né tay jii ñu dans l'ancien régime moy euh, di ja jàppeeti wala bokk ñu nek ci politique bi euh, nek sen procès politique souvent ñu euh, askane ko procès politique japp nga les mêmes faits la ba ou wala amna tout tuuti changement par rapport à la marche de notre justice de notre pays. waaw man comme niñ ñu koy waxee justice mom dafa am yoonu bopom mhm. euh lélé ñun ño xamné ne li li droit. Mhm. léeg-léeg mun nañu munoon mën nañu mbir. Mhm. Euh, c'est ça le problème de fond. Mhm. mais man luma japp dal luma gis ba légui gis na dal euh, war nañu mëna am euh, espoir. ni justice bi dal de dina tëddee njaaxanaay. parce que boko comparé ak régime bu néwon fini, nii. gisoon nañu ay arrestation yo xamné euh ñu Mm. dem ba il se pose des questions. Mm. est-ce que li dafa di lo xamné lu mm. jaar yoon la. Mm-hmm. waye dal lutax askan bi jog xex mm-hmm. tey ni pour ñu am justice bo xamné bo fa duggé daan bo fa jël wala buñ la relaxé ñoo xamné vraiment juge dañu libre. Mm-hmm. mais question bobu dafa di lo xamné fep fo foo wër si àdduna bi ah. moy euh, juge tout temps dañuy laaj est-ce que juge ils sont libres. Mhm. voilà dafa di question bo xamné deuk bo dem dal dafa di moy lool mhm. mais dal lu ñu mën a jàpp Sénégal d'al dafa am tradition euh, <coughs> tradition justice bo xamné mhm. war nañu mëna a rafet njort ni sun juge yi ils sont assez libres euh, si liguey bi ñuy def ko bon ñi ngi ñaan euh gouvernement bu fi nek aussi euh, nañu gëna a xel ci li parce que justice may lépp. deuk bo xamné amul justice dal euh, dënn denny dañuy a mhm. et puis dënn yi mhm. euh, Aïssatou euh, ci mbir mi ci c'était entre deux camps yo ñoo selon d'ailleurs les les propos de l'avocat pourquoi liñu dénoncé la présence donc ñi nga alors que l'autre camp ils étaient impliqués dedans gisuñu nous ci kanamu ndax dañuy jàppee loolu justice à deux pas de mesures wala. bon je vais pas dire que c'est un peu compliqué mais lu ma mën a wax rek mooy euh, membres yi nga xamante ne ñoo bàyyeekoo ci sàmm sa kàddu ñoom la yoon teg loxo. Mhm. est-ce que nekkul ñoom lañ jàpp en flagrant délit. Mhm. est-ce que nekkul ñoom lañ jàpp ñu def violence bi. Mhm. est-ce que ñee fournir nañ ay moyens yoo xamante ne mënees na yoon may na leen ñu teg leen loxo. voilà c'est un peu compliqué à dire mais man lu ma lu may wax mooy cinq ans yi nga xamante ne euh, ñu ngi koy ñaan pour mu takk seen kaw pour man dafa bëri. dëgg la justice. Euh, mën na def lépp pour corriger violence mm-hmm. mais tey Abdou ñu bëri ñu ngi yàqu te prison la ñu yàqoo mm-hmm. te tey genre yooyu li ci grave mooy da nga gis koo xamante ne bokk si fekkeewul dañ ko ciy laaxaale tëj ko 5 ans ferme wala tëj ko 2 ans ferme yoo xamante ne ci biir prison yi la xale gi di fermer formé wee gang yi mm-hmm. suñu génnee si mbedd bi duñu am benn réinsertion sociale da dañuy nekkaat ay bandi ci loo xamante ne tey peut-être que mën nañ ko corriger en 6 mois wala wala sax moom bañ fa àgg mais ñu man pour man li li li am solo mooy ñu def de telle sorte que su beneen yoon amee bu campagne amaatee. Mhm. li ni mel du am si kan lay njëkkee nag. autorité yi lañ njëkkee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy campagne. Mhm. parce que la violence est d'abord verbale avant d'être physique avant d'être physique ça c'est donc le ñu dem fayu ci mo mhm. andi li yépp mhm. il va il va falloir que ñu dem venger wu andi li yépp kon tay pour man dañ nañuy teg bala ñu ko teg xalé dañ ko teg autorité yi wala politiciens yi ba paré parce que tay képp ku top sa gannaaw ya ka dañ ci loko wo war na la mëna a wuyu surtout boo nekkee politicien tay euh, tay nga nekk ko xamante dañ la bëgg dañ la sopp ndaxte tey dafa am ben fanatisme bu ñu bu ñuy dund ñun ci walu politique tay buñ la nee demal xeex da ngay xeexi donc je pense que tey politiciens yi ñoo war modérer wala atténuer le degré de leur discours surtout sur le côté de la violence mm-hmm. mais jàpp ni que tëj ko cinq ans ci loo mm-hmm. xamante ne mënoo ci am certitude parce que violence la woon boo loolu woon ku ne ngay mm-hmm. dóor ku ne nga xàcc voilà donc mën nañoo xool beneen moyen bu ñu leen corrigé wee sans ñu yàq seen avenir ci prison bi man loolu laa jàpp am na solo euh, René par rapport à toujours ce sujet dans le même sillage euh, li ñu seetlu mooy euh, souvent les discours également dafay nekk dafay xaw a tang. c'est des discours un peu euh, show yo a ni inciter à la violence selon vous les leaders d'opinion euh, les chefs mo xam ni jité ban comportement ban attitude la wara am vis-à-vis ak ñi and ak non c'est c'est vraiment dommage. Mm-hmm. lu mu wax ni lu lu am la. Mm-hmm. Euh, parce que ñu bari ño xamné dem dama di fréquenter. Mm-hmm. man personnellement awma ben engagement ci ben parti voilà ñu bëri ño xamné ne dama échange ak ñoom ñoo xam ne si la ñu ak ño xamné aussi aussi euh, jotoon nañu def politique mais voilà depuis temps Senghor mais tout temps dañ leen ne politique noble moko mëna mën def. Mhm. Mm-hmm. voilà tey nii gis nañu tey euh politique mo dafa di benn moyen d'ascension sociale. Mm-hmm. loolu moo tax xëccoo bi bëri foofu. Mm-hmm. mais les chefs de parti moy leaders yi. dañu am responsabilité si dëkk tout à fait maanaam daal Mm-hmm. lépp loo def lépp loo wax ni am na ñoo ne ngi bu ne ils sont extrêmes. Mm-hmm. ñeneen comprendre l'ennemi mm-hmm. donc pour moi c'est important aussi leader politique ñu am école. di tàggat seen seen militant parce que l'autre c'est très important. voilà leader boo xam ne dafa jóg di wax c'est mom benen affaire la. Mhm. mais nak xam nga leader entre ñom ils se parlent ils se comprennent. Mhm. parce que c'est une attaque politique des am. Mhm. mais attaque politique par exemple ma jël damay jël un exemple Jean-Paul et euh, voilà Barthélémy Diaz, xam ont dafa am tempérament bu ça c'est sa nature quoi. mais elle aussi si politique bi da ngay il place des attaques politiques. Mhm. loolu c'est dans le si langue politique bi la. Mhm. Mhm. loolu mooy nature politique bi. mais militant bo xamné ne xamul politique ni muy doxé bat bo wax bat boobu lay deug bat boobu lay japp. Bo jëlee par exemple Ousmane Sonko tey euh son son ministre premier ministre bi tey nii. léeg bu waxé bu féké yow mi militant bi tu n'as pas compris ban degré lay waxé mun nga jël lu mu wax noonu au premier degré. après nga jël ko c'est c'est ça aussi. Mhm. l'un de mes problèmes. donc man personnellement man dama leen vraiment politique mu donne langue bo xamné ne noble lañ et noble ñokay def. Mhm. mais aussi di len ñaax ñom nañu dekkilaat sen école du parti di tagat sen euh, sen militants parce que mhm. c'est très important. surtout ça voilà Sénégal bi. Mhm. Mhm. Mhm. voilà Abdou. ici il s'agit de poser la question. est-ce que on peut parler de détenus politiques. parce que tey bu fait defee une marche rek fruits tout dès le 2023. je rappelle bien que tu as manifestations manifestation jàppoon mbooloo bu là on parlait de détenus politiques de dictature on parlait de jaay maintenant et est-ce que si si parti bi nga xamante mo taxone ñi ñi ñuy ba ñu yëg ci bopu gouvernement bi euh, amnistie bi ñëw effacer lépp tay ñu tourner pas bi avancé est ce que tay bu ñëwé ñëwee par 80 personnes bëgg leen àtte mm-hmm. on peut parler de détenu politique mm-hmm. ou bien ñun terme bi daf ñuy daf ñuy neex ñu mm-hmm. ñu employé ko situation bi ñu arrangé mu nekk yu bari yo xamante dañ ko wara analyser pour man tay amna yu bari yo xamante dañ ko wara bañ parce que daf ñuy délo gannaaw tay mënu ngo japp 80 personnes japp nañ leen ci violence électorale ci politique jàppoon nañ fi mbolo pour takku il y a de cela même pas une année on parlait de jaay wolé de détenus politiques kon je pense que war nañ ko mëna xolaat pour ñu mën reculer ci côté démocratie Mm. voilà merci beaucoup Aïssatou donc mi ngi noonu di loo xamante rek vraiment war nañ ko gën a euh, bàyyi xel bu baax baax ci euh, suñuy comportement discours yi mais également euh, justice bi nga xam dañ ko bëgg a ci politique ñu jàpp ne ñoom rek justice buñ ne yaa ngi koy tudd sànq détenu à gauche procès politique à droite hein. mu mel ne ñoom justice bi daal dafa war a nekk daal ngir di jàpp ñi nga xamante ni ginaar la ñuy sàcc ak nen ñu tëj leen ci kaso bi fàtte seen i dossier seen dossier réer ñu leen di def ay dànk ci kaso yi alors que ñoom kuñ ci laal nga woo woosee mbooloo ñëwal kenn waruma laal perte bi quiétude nit ñi kenn du mëna a dem tribunal kenn du wuti casier judiciaire kenn du wuti ben papier extrait de certificat de mariage euh, tous les papiers administratifs yi nga xamante moy tax nga mëna a euh, dëppoog sa réew ni mi doxee ci wàllu administration dañ koy muju bloqué des barricades jël ay char génn ay yoo xamante ni war nañ ko utiliser si d'autres moyens parce que tu ji ñi ngi wax ay agression à gauche wax côté yi am insécurité pourquoi pas ñu déployer ces moyens là ngir ñu sécuriser les populations mais si un homme politique bu am problème ak état rek ñu jël mbir transposer ko ci terrain politique terrain droit bi def ko politique mujj ki mu nek procès politique marathon euh, politico judiciaire nga xamante ni daf ñuy jëlal trop de temps euh, yàq suñu suñu euh, déplacement donc des pieds et de leurs personnes je pense que ne plus jamais ça ñu répéter les mêmes faits ak les mêmes erreurs yi nga a fait fi dans le passé les nouveaux tenants du pouvoir ont du pain sur la planche ils doivent quand même s'inspirer du passé li nga xamante moo fi jotoon am plus jamais ça ne fait am la rupture que j'attends pour les nouveaux temps du pouvoir la vraie rupture c'est quoi c'est que plein exercice du pouvoir même qu'il y ait un DG ou un ministre ou un président de la République qui n'a pas respecté sa parole qui a failli à sa mission qu'il quand même soit traduit en justice C'est vrai. une vraie rupture parce que y fii yëpp moo fi Je que ci Je fi que sa nelawal côté il un problème soit dans ngay naan ni donc pour moi, l'on a pour réconcilier davantage la population avec la justice sénégalaise qui est été dit ternie l'image de notre appareil judiciaire est ternie l'image de nos institutions est ternie Nous avons fait mën nous ba loolu tey jii fait que nous ko nous am de l'ordre les hommes politiques pourquoi def campagne nous nous valeur c'est-à-dire que yow un gros bras recruter ay mbër recruter ay ay ay borom yi doole wut ay guddee yut ay ngaana alors que y a que yàlla a que de la violence légitime je veux dire bi nga xam j'ai am droit def la répression Moi, j'ai am droit de dire, quand la menace est présente que l'État fait euh, li que l'État soit là pour faire face maintenant si bu avez dit ba tey jii ay yeneen nit à la place de ces FDS di def ces métier il y a problème maintenant pour réparer ces erreurs nañu fexe ba dans les dans l'avenir si ñuy demati ci ay élections comme nous jaar ci charte réew mi jaar ci déposé liste bu valider validé pour man niñ ko defee ci élection buñu buñu voter centre yi ñoo ay nangami centre vote mo nek Sénégal te pourtant chaque centre vote y a des FDS qui sont là pourquoi pas chaque candidat euh, si quartier général balay départ mo am auto FDS bu and ak mom ñu éliminer euh, les les gros bras FDS yooyu and ak ñom ba paré sécuriser len ba paré ñu appel len heure ak fuñu yam mais Sénégal bu campagne jotee rek ku ne jël ci ñenti auto 50 auto véhicules yo xamanteni ni état bi sax amuko da nga ñi fu ñu ay bi nit ñi kenn du dem kenn du kenn wax alors que garde rapproché sax rôle am dëgg mooy lan mooy fexe ba yow ki nga nekkal bu bu mu gaañu lool moy garde rapproché mais yow da nga gis garde rapproché yo xamné ne garde du corps garde gardatuñ corps ba de ñom ña ngay yàqi koor yi jàmbur ña dem di attaquer ñeneen di dóori ñeneen di def yo xamanteni comme ñu nekk ci film mais ça c'est dangereux dans ce pays alors que homme politique yi jaruñ ko ñaata nit ñoo dé en Côte d'Ivoire en 2011 général Djibo daal joxe résultat yo xamanteni amul amul benn jox ki résultat joxat ki résultat ñu dem 2011 3000 morts 3000 morts nous sommes en 2024 l'ancien chef d'État génn na CPI bu yag bay tambaambalu réem di doxé fa soxlam bay joxante poids de ñe euh, poids de poids de poids poignée de main ak l'actuel président tayji ku fëggoon ñu deewoon ne len tayji que conseil constitutionnel déclaré woon guerre am ba 3000 morts musul am en Côte d'Ivoire ba xaw paralyser économie ñu ne nous ñi waxtaan ñi café ñi bokk échanger ko gëm lu ko fi jar ñu ci ni nous avons nous leen politique du du Sénégal am droit def le monopole de la violence nañuy fexé de sécuriser population bi sécuriser candidat yi boudé ñom ñoom dañ leen recruter né yeen kat indi ngeen seen dossier de candidature nangu nañ ko gis nañ né fi ngeen jaar yëpp baxna valider nañ ko mais dès que la candidature soit valide rek dañu wara fexé ba koku noonu am sécurité bo xamné dañ ko ko yor mais loolu da fay jëm ci yaa ko wax sank xaw ma Aïssatou l' de parti la xaw ma ko wax sank noonu former waat ñi and ak leader yi ñuy xool idéologie la ñuy gëm wala nit ki la ñuy xool ndax mën naa sol costume cravate neex na voix neex na baat mën naa daagu mën naa dox wala dañ koy xool ndax idéologie bi muy am baax na ñu tàggal leen ci ba pare organiser sphère politique bi environnement bi xoolaat ndax am na parti yoo xam ne jar nañu fi ne wala jaruñu fi ne parti yoo xamante ni wala mouvement yoo xam ne seen i jabar sax voté luñ leen seen i soxna sax voté leen. mais dañu rationaliser am na kay am na ñoo xam ne <laughs> <laughs> am na de ah parce que parce que zéro voix moom foo ko dégg mooy kii soxnaam sax voté lu ko donc ñu war a rationaliser les partis politiques et les mouvements ko ju créer mouvement ah. parti politique ah, mais euh, Sénégal mënuñoo nekk ci réew mi ñi nar a ñi ñi ñiy sàkku ñu voter leen ëpp ñi leen wala voter voteel waaw waaw yow ñi bëgg ñu voter leen ñom ñoo ëpp ñi leen wala voter ci leen jëm parce que plus de 400 partis sans compter les mouvements ak yeneen ak association mais bu yàggee réew nak dañuy muju nek ci benn division totale bo xamanteni chacun doo xam à quel sens se vouer pour man il est temps de mettre tout dans l'ordre réew mi fi nekk ni Sénégal liñu am ni bu xamone buñ ko xamone réew yu ko amul yiko yiko yu ko bëgg bëri na mosoo am guerre civile que Dieu nous en préserve mosoo am coup d'état que Dieu nous en préserve hein am fi ay kilifay diine mo xam jang bi mo xam musulman yi nekk ci dëkkin gu neex am dal réew moomu ñu wara profiter profité amee ressource wara nek nekk réew bi gëna neex sax ci aduna bi Sénégal waxuma la ay Afrique ak nangam aduna bi da waroon a nekk tey jii réew bi ci ça, mais lan la les mêmes pratiques politiciennes. continuent vraiment de diviser le peuple sénégalais. lool nak da fa wara jeex. non li li nga wax lool lu am mm. solo la euh, parce que je je pense que tey nii lu ñu war laaj sénégalais moy militants moy lan moy finalité politique. c'est-à-dire engagement bu ngay am ci politique ci ben parti politique lan mooy jeexital bi je pense que c'est très important parce que gis nañu yu bari dañuy dugg politique comme niñ ko waxé moyen d'ascension sociale manam dal damay top diw mu na ma jappalé ma régler sama problème yo xamné c'est ponctuel dina top diw mu na am suba gannaaw suba bu nekkee DG wala ki mu tel ma ben place bo xamné ne damay top mhm. donc loolu depuis euh, plus d'une décennie hein loolu la ñu gën gis si ñoo xamné ñom ñoo engagé wu dans les partis politiques pour yor pour ñew euh, pour jël dëkk bi donc loolu dafa am solo trop trop trop comme noo waxé mhm. man defe naa daal euh, tey ni war nañu mën a dem ces réformes. sur mhm. les partis politiques. Mhm. ñaata partis politiques la ñu am. mais xolal euh, par exemple les démocraties avancées comme États-Unis fofu et grand parti la ñu am. et si grand parti da ngay xeex xé xeex balaa ngay jot ben place bo xam ne tu es éligible pour pour am ben fonction d'éligibilité. ñëpp lay xam. Mm. dañuy xam sa jaar jaar dañuy xam ki ki ki nga ne say say bagages. Mm-hmm. dañuy xam bu fekkee yow mi sa wàllu bopp attan nga mm-hmm. réew mi. voilà loolu dafa am man daal maa ngi xaar si gouvernement bu bees bi ñu amee mm-hmm. réforme si lépp loo xam ne mais organisation des parti politiques. loolu c'est important. ñu am aussi ay réformes yoo xam ne peut-être que loi baa ngi fii boo xam ne mooy topp. est parti politique loi bi lu est-ce que ñu ngi top? Mhm. est-ce que par exemple Téni, parti politique dina def par exemple un rapport annuel si ses activités est-ce que parti politique a une école de parti est-ce que parti politique bonne idéologie Bonne idéologie lay teg ainsi de suite y militant des am comme nous ko hein? xam nga bu njëkk ba day daan wax ay parti yobalima mhm. ay parti télécentre mais ba légui parti yoy ñi ngi fi ba légui pratique yoy ñi ngi fi teen teen nak euh, génération actuelle bi comme niñ ko waxee am nañu responsabilité aussi nañu bañ di top et nit si lo xamné vraiment koku si walu bopom amul ben projet de société bu viable pour le Sénégal instant luñu sur soxla Sénégal moy dal dañaa soxla dal mm-hmm. dañu dañu joggé si ay presque ay cinq ans yo xamné mom moom bu nekk ñi ngi wax fi gauche droite justice ñi ngi wax fi détenu politique comme noko waxé waxee ni rek ñi ngi wax di jaar na yoon jaarul yoon ku nek di lam lamé instant daal Sénégal vraiment dal la soxla quoi parce que lu gëna am solo mhm. si Sénégal moy ku nek amna na fi ni et puis Sénégal dafa yaatu dafa yaatu c'est pour tout le monde quoi mhm. donc man dal man defe naa fa par rapport ak euh, parti politique. Mhm. merci beaucoup kon ñooñu daal di dem rési rek daal di dugg ci parti bu njëkk bi mu nekkoon kon actualité soxal ñi nga xamante ñoom ñoo di kon euh, procès boobee euh, ñu ñaan rek xëy na ñi nga xamante defuñ ci dara ñu daal leen di bàyyi nag ñu ñibbi seen kër waaye ñi nga xam aussi dañoo def dara ñu daal leen di teg ay daan rek parce que réew mi tamit il ñu sanctionner su ko jëree mais tamit ñuy fexee di jël ay évent préparer éventualité yu mel yu nu mel ba gàttandu lu nu mel bàyyi.